bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki daara ji ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax ñu ñëw rek xanaa ci suñu téere bi ñu fi tàmbali woon taxaw ci gëj lool ñëw barkeeluwaat dugalaat ci benn bind rek incha allah te tàmbalee kon nag ci baabu tayammum mi muy buntub tiim man naa am fiñ ci yemoon du sori foofu lool eh, tiim nag niñ ko xamee. laab la goo xam ne ci suuf lañ koy defee muy wecc laabug ndox ci ay anam maanaam bu fekkee ne ndox mi ñu war a jàppe dafa amut wala mi war a sangoo dafa amut wala am na sax waaye dañoo am ngànt ci jëfandikoo ko kon bu boobaa dañuy sant ñu weccee ko laabug suuf mooy tiim danañ ñëw ci anam yi nga xam ne moom lañ koy defee ci téere bi incha allahu taala Eh, moom nag xad saraa fi l raabi la borom saraa bi wax min al hijrat aleykum salaam ci atum ñeenteel mi ci gàddaay gi ci lañ ko yoonal ñu di ko weccee laabu laabug suuf atum ñeenteel go nga xam ne nee na wulida xasan ibnu ali radiallahu anhuma ca la judd moom sidna xasan wa nasalat salaatul xawfi fi xaswati saati riqaaq waaye wa xorimal xamru it yooyu yëpp ci at moom la amee moo tax mu ne baabu tayammumi lii mooy buntu tiim wa faraidihi ak ay farataam wa sunanihi ak ay sunnaam wa mubti wa fadailihi ak ay ngëneelam wa ak way yàqoom maam way yàqam yi ko yàq nee na bunt bi da cee bëgg waxtaane lu aju ci tiim ci boppam ay sababam waxtaane ci ay farataam waxtaane ci it ay sunnaam waxtaane ci ay ngëneelam waxtaane ci it yi koy yàq mu tàmbale ci ne tayam mama sañ naa tiim almaridu aji tawat ji wal musaafiru ak aji tukki ji lil far di ñeel farata e, dafa tàmbale ci ne ki nga xam ne mm, dafa tawat joo xam ne dafa am ngànt ci laal ndox maanaam mënta laal ndox daal ngir tawat ji mooy bañ ndox wala ki nga xam ne day tukki te tukki bi tax koo ñàkk ndox ba nga xam ne farata mooy tiim ñoom ñaar sañ nañoo tiimal farata jullig farata sañ nañ ko tiimal waaye sañ nañoo tiimeel it jullig la waaw dafa am ku ko sañut moo tax mu wax ne ñaar ñi sañ nañ ko kon takkal ne ki tawat bañ ne ko sa tiim farata euh, mooy tiim ak kiy tukki te ndox bañ ne ko sa farata mooy tiim ñoom sañ nañoo tiimal farata sañ nañoo tiimal naafila wa amal xaadiru ndaal aji teew ji nag in saxa mbéem wér na fii fardin dana sañ a tiim ci farata dong wa fi janaasatin ak ci julleeg néew euh, taxayanat goog ràññeeku na ki nga xam ne teew na maanaam tukkiwut tey it wér na maanaam wéradiwut tawatut eh, nga xam ne kon maanaam benn ñàkkum ndox rek moo ko tee eh, jàpp mbaamu songu kooku nee na farata rek lay sañ a waaw farata rek lay sañ a du sañ a tiimal du sañ a tiimal leneen julleg néew it du ko sañ a bu fekkee ne ko amum njàng fa wala koo xam ne farataam mooy tiim ma fa kon moom du sañ a ànd sax sa julli ga day bàyyi rek ña amum njàpp jullee ko wala ña nga xam ne seen farata mooy tiim ñu tiim jullee ko moom mu génn euh, waaye nag bu fekkee ne kenn ko amum njàpp nekku fa moom rek moo fa nekk kon na tiim jullee néegu ok ok mhm. mm, kon julli néew ràññi ko euh, ci moom na tiim jullee ko waaye bu fekkee ne mbooloo mu am njàpp ma nga fa kon moom na dem nee bàyyi mbooloo mu am njàpp ñu jàpp julle ko fekkee ne koo xam ne farata mooy tiim ma nga fa it kon na bàyyi kookee e, dal di dal di dal di tiim daal di ko julle ndax moom farata mooy tiim mu ne laa jumaatun waxuma jullig a juma aw sunnatun wala jullig sunna nee na nag ki nga xam ne teew na te it wér na tukkiwut tawatut mm, nga xam ne dafa amul ndox rek tax koy tiim te day tiim ngir bañ waxtu wi raw ko waaw lu mel ni sax waaw laa jumaatun gi waxuma jullit ajuma jullit ajuma dees na ko tiimal ci kaw bu fekkee ne ndox dafa amut waaye nag bu fekkee ne ndox am na dana ragal cine bo fi nekke diko jëfandiko waxtu wi rawla julli ajuma gi rawla kon loolu dutee nga jàpp bula julli ajuma gi rawee nga julli tisbaar ok bu fekkee ne ndox dafa amut nag maane ndox a amut ci boppam boowaa ñu tiim julli ji aljuma kon la jumaatin waxuma julli ajuma deesu ko tiimal cine rek bu ma fi nekkee di jàpp ajuma ji raw ma aw sunnatin wala sunna jullik sunna yit kenn du ko tiimal maanaam ki nga xam ne euh, mi ngi fim dëkk mi ngi fi mu dëkk euh, mi ngi fi mu dëkk ndox rek la amut kon du sañ a tiimal yit jullik sunna waaw nekki jullik xeet yi ak yu ko nuru nekk wetar ak yu mel noonu dana wax leen ne rek wetar moom boo ko yéenewaalee ca tiim boobu doon tiimal ba muy julli géey rek dana ko ci mën a sësale gannaaw ba ak yooyu noonu danañ ko tudd ci biir téere bi ok kon nag wax na la ñii tiim boo ko seetloo ñetti xaaj rek lañ eh, musaafir bi nga xam ne tukki bi tax na ko manqué ndox ak ki tawat tawat ji nga xam ne taxut maanaam tawat ji ngànt la ci laal ndox ak ki nga xam ne nag mu ngi fi mu dëkk tukkiwut tawatut waaye ndox la amut kon kon kooku it ñett ñooñu ñooy tiim ñett ñooñu nag lan mooy tax ñu tiim mu ne in adimu ndéem ñàkk nañ kifaayatan ak doylu min maa in ci ndox waaw bu fekkee ne dañoo amul ndox dañoo amul ndox kon booba dañuy tiim julli aw xaafa walla ragal soo suq min borom jàngoro masidat daa i yokkuk jàngoro ja wala ku tawtoon ragal ne bu laalee am ndox tawat ji dana yokk waaye it dana tiim aw min xodoosit daa i wala ci sosu jàngoro wala sax daa yaakaar ne bu jàppee tawat ju ko dalutoon dana ko dal boobaa it day tiim aw but is shifa wala yéexe wér wala daa yaakaar ne bu jàppee mm, maanaam jàngoro ji ko dal dana yéex a wér du gaaw wér daal waaye it na tiim bi aadatin ci aada maanaam loolu mu xam ko ci aada nga xam ne lii ku masaadal kat mu laal ndox nii la daan demee nga moom noonu lañ koo xamee bu leneen amoon doon lu xotti baax ok maanaam ñëpp commencé ci xam ne bërëb sàngam kat ku fa am ab góom boo ko laalalee ndox boo dee jàpp laala ko ndox moom soo yàlla góom ba dana yokk wala du gaaw wér wala sax yeneen jàngoro dana ca sos ñu xam ko ci aada maanaam ñëpp commencé ci nga noonu la daan demee. aw an tabibin wala mu jële ko ci ab médecin docteur xaarifan buy aji xam wala docteur bu xamuk faj wax ko ko ne ko lii kat bu la dalee moom boolaalee ndox dana gën a yéeme dana gën a yokk wala leneen mën na la cee dalaat sax jeneen jàngoro ju la dalutoon mën na la cee dalaat loolu ba tey dana tax mu bàyyi ndox ma daal di dem tiim wa in ala nafsin ak bu ci bakkan wa maalin wala nga ne wa in xaafa ndéem ragal na ala nafsin ci bakkan wa maalin ak alal wala it maanaam mu ragal ci jëfandikoo ndox ma wala jóg di wuti ji ndox ma jóg di sàkku ji ndox ma alkande alkande ci bakkanam alkuk bakkanam mën doon ak faatoom wala loroom lor ju méttee métti mu jële ko ca waaw bu ca ragalee ak faatu bakkan moom alkanek bakkan boobaa kon day war moom mu bàyyi ndox ma te tiim du sañ a jëfandikoo ndox ma sax bu ca ragalee nag lor ju méttee métti maanaam lor ju tiis teyit it du yegg ci faat bakkan daal te du maanaam lor daal dana ci jëlee ngaañ daal kon boobaa danañ sopp mu bàyyi ndox ma te tiim hmm. waaw eh, ni noonu la it bu fekkoon ne dafa ragal ci bakkanam ay sàcc wala ay ndegment wala sax koo xam ne dañ koo forcer ci ne ko doo jàpp. ko xamne dañ ko fas ne ko do fi jappé wala do sango ku ko ëpp doole daal nee na ko do japp wala do sango mo xam nu mëna dem wala ko xamne ne dañ koo yeew euh, dañ dañ ko yew ok hmm. dañ koo yeew ba mënta japp way nak mën naa tiim kon boba na tiim julli donte yew bañ ko yew tax na sax buy julli du mëna sagga ko siggi way day junj kon na tiim dal di junj manam di junj julli ga nam ko mënee rek ok wala sax jëfandikoo ndox ma wala sàkku ji ko da caa ragal ak alalam maanaam sànku alalam joo xam ne alal ju am solo la waaw kon bu fekkee ne leer na ko ne bu dee sàkku ji ndox ma wala bu ko jëfandikoo alalam mën na caa sànkoo te alal ja alal ju am solo la waaye bu ko ñàkkee dana ko xaw a jural jafe-jafe kon boobaa ba na bàyyi ndox ma rek. waaleykum salaam na bàyyi ndox ma daal di far tiim aw samanul maa i wala njëg ndox ma nama dolliku na ijhaafan ci faagaagalu wala sax moom ndox mi muy jàppe wala mu muy sangoo da koy jënd waaye nag ndox mi tey daa seer lool maanaam njëgg daa yokk njëgg daa yokk te la ca yokk bañ ko seetee mu mat sulus ba mel ne ndox mi fanweer la daa jar tey ñeent fukk lay jar nga xam ne yokk nañ ca fukki dërëm mat na sulus ba ndax fukk mooy sulusu fanweer gis na ne kon li ci yokk fukki dërëm la mat na sulus ba kon boobaa it ba tey bu donte am na ko sax donte am na ñeen fukk yi sax bu ko neexee téye aw fukkam daal di tiim yoon may na loolu yoon may na ko loolu mhm. waaye nag bu fekkee ne la ci yokk moom lu néew la rek te it mën na ko kon na jënd ndox daal di sangu mbaa mu mbaa mu jàpp bu fekkee ne moo ko moo moo ko war aw xaafa wala mu ragal bi isticmaalihi ci jëfandikoom ay talab wala sàkku ga maanaam wuti ko laxoo ñeel ko xurujul ixtira ixtiyaari yi génnuk waxtu wu muxtaar ma in zahaba ndem dem na kay wala sax am na ndox mi ngi nii wala mën naa dem fee wuti ko am na fële waaye nag daa yaakaar bu ko fi nekkee di jëfandikoo di jàpp wala muy sangu wala muy dem fa muy duyee ji ndox ca teen ba wala lu ko nuru bu demee balaa ñëw wala bu dee jàpp balaa noppi wala bu dee sangu balaa noppi waxtu wi day jeex waxtu wu muxtaar wi day jeex nga ne bu jàppee ba noppi mbaa mu sangu ma noppi mbaa mu dem wuti ndox bu dikkee bu ko jëfandikoo ba noppi waxtu yi du ci am lu mat ab rakka waaw rakka boo xam ne day da koy matale ba ci ñaari sujjóot ya woxuñu raka bi ngay jot ci iliman rek nga xam ne boo àndik iliman record rek déedéet raka boo xam ne ñaari su jóotee day mat kay waaw kon bu bu bu bu yaakaaree loolu ba tey yoon daraan ko na sàmmonte ak waxtu wi dal di tiim dal di julli mhm, kon eh, foro duuxu waaye ñu taxaw foofu eh, aju bi gudd na ba noppi incha allah